mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi ñaanal mbooleem xalif généro yi ni ci biir réew mi yàlla bàyyi leen fi nu wér ñaanal sëriñ kër si Mouhamadul Mansour xalif général des Tidiane nuyu ko ziar ko ndokkeel ko bàyyiwuma ëttu këri diine ji mbooleem xalif généraux yi nuyu naa leen ñaanal njiitu réew mi ñaanal borom kër gi président Youssou Ndour nuyu sunu sëriñ sëriñ Maodo si Abdoul Aziz mbokk yi mi ngi noonu ak télévision Futurs Médias ñaan yàlla yàlla na moom yàlla mu mayaat nu fekki ko ay déwén réew mi yàlla def fi jàmm yàlla def ci réew mi jàmm waaye mbokk yi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul nu sunu koor yàlla moom borom bi mu dollu ñu xiir ci boppam waaye nag dollu ñoo bëgg la yonent bi nu ngi yem ci dund yonent bi fa mu yem altine la moom rasulullah ci bisu juddoom ci weeru juddoom ca ñu laaj Maodo Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu mu ne ci néeg Aïcha radiyallahu anha ci la génnee àddina ndax yonent bi ni ko feebar bi daanelee wax naa la ni la mardi la ko daaneel mooy talaata feebar bi duré na quatorze jours ci altine ja quatorzième jour ba ci la Seydina Muhammad dem sallallahu alayhi wa sallam Seydatuna Aïcha nee na daan nañu jël morso tooyal ko ndox di ko màpp ci yaramu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu jëlee morso tooyal ko boo tegee teggi mu woowaat koŋ ndax yaram bu tànk te lu yàlla bind moomu bu kii keroog mënakul muuti bi mu duggee ke rasulullahi fekk na njool màkk toog tëdd ma nga jël bopp ba teg ko ci Aïcha Fatima ngi toog ci wetam ñu jékki-jékki ñool màkk ne Fatima am na kuy nuyoo fayal kiy nuyoo Fatima xool ci bunt bi gis fa benn waay bu taxaw mu ne ko sam dafa sonn sam tey mënul recevoir bàyyil ba beneen nga ñëw dafa tawat daal di duggaat mu ne ko bàyyi kii de xàmmewu ko ci dëkk bi xëy na ma nga dëkk ca kaw wala ca banlieue ba waaye xàmmewuma ko ci dëkk bi nabi siggi ne ko Fatima xamoo kii nuyoo mu ko déedéet bàyyi mu ne ko Fatima kii mooy tàggale bàyyi ak doom Fatima xamoo kii nuyoo mu ko déedéet bàyyi mu ne ko Fatima kii mooy tàggale yaay ak doom Fatima kii mooy tàqale jëkkër ak jabar Fatima kii mooy tàqale ñaari xarit yu ànd mu dégagé kenn ki doom kii mooy màbbal dëkk yi doom kii mooy wéetal kër yi Fatima kii mooy mënukul muuti njool màkk ni may ma loxo mu jël loxoom yor faat ay sa jël loxoom yi roof ci mbaggi rasulullah yi njool màkk jug toog ni mënukul muuti agsi mu agsi kooku fu muy dugg fu muy dugg du yëglu ba mu des ci rasulullah yi nabi ne ko jita zairan am xaabida looy wut danga maa rey wala da maa ziar si boobu njool màkkaa ngi am 63 ans juróom benn fukki at ak ñett mu ni ko loo bëgg yaa rasulallah yàlla nee na su la neexee dem léegi yàlla nee na bu la neexee ma bàyyi la fii mu ni ko ana jibril mu ni ko ma nga asamaan ñeenteel malaaka yaa ngi ko jàll sa ruugi mu ni ko wol ma ko xefek képp jibril na lay cëpp ne ko asalaamu aleyka ya abal xaasim asalaamu aleyka ya rasulallahi yàllaa ngi lay nuyu mu ne ko jibril neel yàlla ëllëg lu muy def ak sama xeet wi allahu akbar mbokk yi kii ndax jar na bëggam jaru bëgg mbokk yi kii ndax jar na bàyyi xelam déet mbokk yi kii ndax jar na di julli ci moom foo toll moom yonent bi alayhi salaatu salaam ndax kii jar na ay jël ay jikkoom yu tedd ya ci mbaaxam nga di jéggale ka jëllale ci tabeem nga moom rasulullah mu yayaarlu yàlla ne ko bu duggul aljana mu aram ci mindee fii waaye nee ko xeetam bu nu duggul aljana aljana aram ci yeneen xeet yi mbokk yi nga xool yonent bi alayhi salaatu wasalaam jibril ñëw wax ko li ko yàlla wax mu ni ko laajal ma mulukul muuti sukuraat métit bi ñaata la mulukul muuti ne ko téeméer la bi xool jibril ne ko nee ko sama xeet kenn ku ci nekk ci ñoom quatre-vingt-dix-neuf pour cent la ma ko jox ci méttit mu bàyyi leen un pour cent juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeentam na ma ko jox mu bàyyi leen gën wàll mais un pour cent kooku keroog bi muy dee moom rasulullah day jékki-jékki weex taal jékki-jékki xonk cuy jékki-jékki ñuul kuk keroog la naan moom rasulullah inna fil mawti la sakaraat moo moo nekkee nii day waxee góor gi ni ku nekk ci dëkk fukki at ak benn génnewuñu la dañu laa dalal wa aama uhdi atum dalal ma da ngay firi ba noppi chiffre door a mu ni wa ama ux gi a atum fukk ak benn alif 1 hël ku béer 5 del 4 muy alif 1 muy 11 muxtaadan mbir ma muy aji làq ala mu màgg jëm ci boroomam piril ba noppi chiffre door a ñëw jim la lamar a 30 30 plus 3 33 nga ma wax ramasel ma lam gi ci topp 30 la 33 plus 30 muy 30 car 63 ans moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni daahu woo na ko ku ko woo mu ni mawlaahu moom kañ fii safarin ci weeru safar moo alaaji maa ne lu mu koy doyee mu ni lil karami ngir teral jol bàkk rek alaaj bi sàndoo ci caméra bi bu subaak